se Seydina Xadim daayira bi nag cosaan li mi ngi bàyyi ko woon ci Cheikh Salih Mbacke bi nga xamee ne Baye Serigne Bousso Mbousso be Bousso sa xarit ba sa soppe ba sa wëllëre wa bi sëriñ Saliou toogee xalifa ba mu am ñetti weer ci la àndoon ak lenn ci njaboot gi demoon ca Cheikh Salih xamal ko ne ko dañoo sak dañoo bëggoon ndigal loo xam ne dañuy day jublu ci jumaa ji mu xamal ko ne ko man jox naa leen ndigal ci setal jumaa ji ak lépp li ko wër alxames ci jot ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ci jumaa ji di se di julli si bu ñëwee àjjuma fekk jumaa ji ne mel nam war a mel. daayira bi képp ku ci bokk sa warul naa la ngërmal Serigne Touba loo xam ne maa koy seede boo ëllëgee yowmal xiyaam daayira bi nag boobee ba léegi bàyyi Serigne Bousso bi Bousso ak ñi mu àndal ñëpp ak lenn ci njaboot gi mu nàmputal leen ci gar leen ci ba waxtu wu ne alxamis jii nga xam ne moom la ñu seetalee jumaa ji yëmalewu ko dara ndax lii firnde ji mooy doo daanañu dénk di ñu wax nañu lii yemale moo koog dara ndax dama cee am yaqiin te lépp loo xam ne am nga ci yaqiin bokkut ak loo yaakaar alxames ci lépp lu masaa dajeel moo xam dafa dafa sebbi wala yeneen xew-xew yu mën a doon danaan li ma am yaqiin du ma ko jëndeeg li may yaakaar lépp lu alxames dajeel na ngeen bàyyi loola te jàpp ci alxames ji lii firnde ji mooy bi nga xamee ne dem na ba war a génn àdduna taxaw na ñun ak njaboot gi yëpp dénk leen ne leen bis alxames ji na ngeen ma ko fonkal ak lépp li war jumaa ji seere si mooy këram am na lim boo xam ne da ko faa dagg daan ne liggéey bi damaa bëgg mu sax kon nag lim bi dagg naa ko muy meetar yi jox ko jumaa ji addee sëriñ Touba. ñu am fu ñu mën a nekk liggéey bi di sax ba ilaa yow diini boobee ba léegi nag bi nga xam ne euh, génn na àdduna sëriñ Babacar Bousso mi nga xam ne moo jiite njaboot gi sëriñ Abdoul Ahad Bousso mii nekk suñ kanam ñu àndoon dem ci sëriñ Sidul Muxtaar yeesluwaat ba di jaayanteeg moom ba tey jii nga xam ne yaa fi nekk ñu ne ñu àndandoo ngir ñëw feddali liggéey booba soxna yi takk soxna yi ak góor ñi ñëpp nga xam ne biir jumaa ji ak bitti jumaa ji alxames yu jot danañ ko buub ba mu set ñu raxas ko def ci lañ war a def lépp ak kër yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji yépp ba ci kër gi ñi fi nekk ñëpp xam nañ ne alxames yu jot danañ ci dugg waajukaay yi ak saal yi nga xam ne dal gan ñi danañ fi dal raxas ko ba mu set ñu yëwénal ko ngir ñëpp ñoo xam ne dañuy soxla woo jumaa ji wala li war sëriñ bi ñu nekkee fekk mu mucc ayib loolee nag tax ñu ñuy dagaan di ñaan di sakku sëriñ sëriñ Muntaxa nga ñaanal daayira bi bu baax a baax te fàggul leen nga neelal Serigne Touba loo xam ne dana kawe njort ngir ñu am kàttan ak wér ak gudd fan ba li nga xam ne moom la Baye Serigne yéeni woon muy liggéeyal Serigne Touba ci jumaam ji ñu def ci lu kawe njort ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal te li nga xam ne moom nga am yéene liggéeyal Serigne Touba ci naal yi nga xam ne moom nga naal te lépp di naali yoo xam ne day may nit texe àdduna ak alaxira mooy jumaa yi ak jàkka yi ak jàngukaay yi ak fajukaay yi lépp àgg nam war a àggee te ñu ànd ko ak yow